dama dem émission TFM àllarba fukki fan ak juróom bi ma demee émission bi faram-fàcce jeex ma taal sama auto di ñibbi comme ni ma ko mës a defee su ma demee ci télévision bu ñu ma invité may ñibbi dem ba tolloog mosquée de la divinité ma dégg balide dal sama sama oto tiir yi ñaari côté yépp am ñu fa taxaw di tiire mënu maa xam nombre parce que booba li ma intéressé mooy ma bañ a paniquer téye sama euh, volant normalement accéléré pour génn ci seen champ de tir loolu moo ma intéressé woon donc mun moon a gestu di xam ñaataay tiire mais tiir yi bëri na bi ñu demee ba gaare donc mun moon a gestu di xam ñaataay tiire mais tiir yi bëri na bi ñu demee ba ba ca ëllëg sa la ñi nga xam ne ñoom ñoo dem gaare oto bi ci biir parking ñëw daal di wàññi impact yi wax ne juróom-ñaari bal la ñu tiire juróom-benn ci oto bi ak benn boo xam ci pneu bi lañ ko dóor bi ñu dóoree ci pneu bi ci tableau de bord bi effectivement siñaale na ma ni ma pneu bi pe pneu bi euh, am na problème donc ci laa xam ne tiir bi ci suuf donc ci pneu bi la dal mais comme tubeless la comme ni ma koy waxee mën nga cee dawaat ab diir bala moo peer ba jeex loolu moo tax ma accéléré dem juróom-benn nit euh, donc bal yooyu ñu tiire sama oto. ci ñaari côté lañ taxaw di ko tiire ñu tiiree ko ci mosquée de la divinité yéen ñëpp xam ngeen ni foofa këru président de la république fa la nekk président de la république Macky Sall foofa la këram nekk ñaari rond yooyu nga xam ñoo nekk wetu këram yëpp dafa am sécurité bu fa nekk à tout moment. gendarmerie. dafa am donc ay gendarmes yoo xam ñoo fay monter à tout moment di relayante foofu problème de sécurité waru fa am beneen bi. mooy dafa jege camp militaire également donc foofu laa toll ñu def ma lañ ma def ma accéléré daw ak sama oto dem ba tolloog euh, hôtel Radisson ma gaare ñëw taxaw ak euh, vigile bi wax ko li ma dal mu ne ma kon dugal ci biir parce que tu es une personne en danger parce que su ko deful woon day nekk non assistance à une personne en danger loolu nit ba bu loroo donc mënoo dul dem foo xam ni fa lañ la mën a xettale bi ma duggee ci biir réception bi tamit sécurité mu fekk bi ma leen expliqué de façon professionnelle ñu jël ma yóbbu ma seen poste de commandement foofu laa fanaan ci hôtel bi donc ci seen poste de commandement léegi nag ñoom ñëw nañ dugg si ba ci hôtel bi ñoom ñi xam ñoo doon tiire ci sama oto dugg si nañ di ma topp parce que bi may gaare ci buntu hôtel bi parce que mënu ma woon ñëw rek forcer pour dugg seen barrière parce que loolu tamit dama doon andi problème sécurité moo tax ma gaare ci buntu bi wàcc expliqué leen ñu ma bàyyi fi oto bi nga gaaw ñoom ñoo mujj sécurité bi dugal auto bi ci biir hôtel bi. bi may gaare maa ngi gis oto boo xam mi ngi gaare sama kanam mi ngi yore ay gyrophare seetlu ma numéro jàpp naa ne amul numéro mais fi mu taxaw xaw na sori ba mënu liir lire numéro même bu ko amoon mais gyrophare bi mi ngi leer nañ. ay nit ubbi nañ porte bi moment bi may dugg ci hôtel bi di wax ak vigile bi di dem ñooñu ci oto boobu ak moto bu ñu wax ni toppoon na leen ñoom ñoo dugg maintenant après ci biir hôtel bi pour jéem wër ci hôtel bi la sécurité de l'hôtel a été ferme loolu moo tax waxuñu sax ak ñoom moo tax ñu gaawantu dem avant ñuy dem dugg nañ ci sama oto biñ duggee ci sama oto vérifié naa oto bi mais vitre bi wàccul woon euh, yéegul woon ba ci kaw dugal nañ fa benn euh, dugal nañ seen loxo utiliser benn euh, benn euh, instrument ba ubbi sama porte oto biñ ko ubbee ñu jël samay pièces jël nañ sama caabi kër sama caabi bureau jël nañ sama permis de conduire jël nañ sama carte grise oto jël nañ donc également sama visite technique loolu lañ jël ci oto bi léegi nag li nga xam ni moom moo am mooy euh, ñun bi ñu xëyee sama avocat ñëw na ñu toog def constat bi mu ànd ak huissier huissier bi def na constat def nañ prise de photo yi ci oto bi gis nañ impact yi juróom-benni bal yi dal ci oto bi bu ci nekk am na impact ba dugg na ci biir oto bi ba xotti chaise yi yàlla subhaanahu wa taala rek moo ñu moo ñu rëccal parce que bal yëpp dugg nañ bu ci nekk gis nañ impact bi fi mu duggee ak fi mu génne ak fi mu dal ci biir oto bi loolu muy lu garaaw a garaaw loo xam ni wër ta mën a am cim réew ñuy toog ñun di seetaan ça veut dire que président Macky Sall mi nu faloon pour mu man ñoo aar léegi moo taxaw di seetaan ak di ànd ak ñoo xam dañuy boom sénégalais yi kon bu ñu demee ba yow nga war ñoo yiir ñun nga taxaw léegi di ñu boom kon nag war nañoo jot na pour ñu jël suñuy responsabilité lii nga xam ne moo am kenn waru ko fee nangu Sénégal parce que comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp yàggul am na liste bu fuité boo xam ni dañu wax ni ñii dañ leen a bëgg a faagaagal ñoom ñëpp dañ leen a bëgg a parce que ñoom ñooy empêcher pour ñu dérouler li ñu bëgg a dérouler ci jaay doole te ñun ku ñu xam-xam ne duñu ay buqat président Macky Sall bu yaakaaree ne mën nañoo tee ñu taxaw fi ñu taxaw ci dëgg pour suñu réew day nax boppam sunu bakkan yii sunu bakkan yii ci yàlla subhaanahu wa taala lañ ko jëlee moo ñu sàkk te moom rek moo ko mën a nangu amul kenn ku ñu mën a xoxtal wala nga tiital ñu ba tax ñu dellu ginnaaw ci taxawal sunu réew parce que réew mi kenn moomu ko te ñun dañu gëm ne ab jullit bu ragalee day bu ragalee donc ça veut que bu ragalee doomu aadama ne moom mooy moom euh, da da da ragalul yàlla subhaanahu wa taala mi ko sàkk mais gëmul yàlla subhaanahu wa taala mi ko sàkk parce que dañoo gëm ni lépp lu la dal ci yàlla subhaanahu wa la la la la mën a nekkee parce que moom lépp lu am da ciy ànd mooy tax mu nekk bu ci àndul du nekk parce que juróom benn bal bu ñu ko tiiree sa oto ci portière yi nga xam ne presque yow fi nga toog bal bi percé te bal bi laalu la kon xam ngeen ni kenn du yàlla subhaanahu wa moom rek moo mën kon nag ñun duñu def dul sant yàlla subhaanahu wa mi tax ñu def tiire juróom-benni bal réel ci sunu oto bal yëpp bët ñu nekk ci oto bi te benn bal laaluñ ci parce que yàlla lu mu namm ci doomu aadama bi nit doomu aadama mun ci dara kon nag li nga xam ne moo am nag mooy président Macky Sall li mu décidé léegi mooy rey sénégalais yi rey sénégalais yi nga xam ni d'accorduñ ci ku leen no d'accorduñ ci jaay doole bi mu nekkee d'accorduñ ci fi mu bëgg a jëlee fi mu bëgg a jëme réew mi d'accorduñ ci muy jël sunu constitution di ko salfaañe di ko nappaaje ci ay intérêt boppam ak intérêt France lii moo tax ñun dañuy taxaw fi ñu taxawoon du ñu bouger d'un iota bu yaakaaree ni mën nañoo xoxatal ba dootuñu waxati day nax boppam benn changement du am ci ni ñu taxawale woon sunu réew parce que réew mi moo na ñun kenn ñoruñu ko dul réew mi réew mi comme ni ma koy waxee toujours donn ko ci ay maamam donn ko ci ay waajuram ba bëgg ñoo yegg fu nu yàlla yeggul kon li ñu bëgg a wax sénégalais yi mu leer mooy dañuy taxaw tem comme ni ko camarade Clédor seen waxee sànq dañuy def le tour de toutes les forces vives de la nation mhm. ñu waajal taxaw résister parce que actuellement jaay doon la bëgg a def mhm. bëgg ñoo napp benn président mos fee def li président euh, euh, Macky Sall def actuellement gis nañ Senghor jaar fa période clandestinité jaar fi mu ànd ak France di faagaagal ñu doon ñi doon résister ñu gis euh, mais mus mais Senghor mus fee def lii Macky Sall di def ñu gis Abdou Diouf ñëw fi wuutu ko mais moom it mus fee def lii mag Sall di def Abdoulaye Wade lu ne xaw na Sénégal mais ni terreur bi terreur bi daw actuellement ci dëkk bi koo waxal mun la dama tiit ñëpp ragal mais pourquoi ñu war a nekk ay sénégalais nekk lu mat presque dix huit millions de sénégalais benn nit. ak benn groupe groupe bu ndaw bu ko ñoo napp di ñu tiital ba képp koo gis léegi bu guddee da naan man léegi damaa tiit damaa ragal pourquoi ñu koy nangu bu ñu ko nangoo ñàkk fayda on ne peut pas l'accepter ñun li ñuy wax mooy de façon pacifique on va regrouper les sénégalais parce que on l'acceptera pas il faut un grand rassemblement pacifique du peuple sénégalais pour que ñu won Macky Sall ne moomul réew mi jaay dooleem bii na ko arrêté parce que ñun nag mun ñu fee nekk demaluñu fenn ñu jël suñ lépp jox ko ndox sax su ko naanee ci pale bi suñu xaalis la lépp lu fi def ñun ñoo ko moom même bu defoon tali or même bu defoon tali or bu ay mandaam jeexee day dem président la république même boo defee tali or du sa xaalis xaalis sénégalais yi la barma dee mu jege jege ñaalem di joxee ay bilan mais le président Obama aux États-Unis mais a eu un excellent bilan mais bi ay mandaam jeexee dafa dem fii nul n'est indispensable même bu fi defoon ay tali or def fi ay euh, ay teeru or def ay hôpitaux en or def fi ay plateau technique très relevé te loolu amul def ay écoles yu mucc ay du te bu ay mandaam jeexee dafa war a dem kon nag dem jot na moom mu ni du dem day jaay doon kon nag loolu kenn ko fi nangoo tey kenn ko fi nangoo ëllëg